nañ fi ci semaine bii ñu génn muy vendredi bii passé ay événement yoo xamante ni ay xew-xew yoo xamante ni méngoowut ak dëkk bi muy ay xew-xew yu ñaaw yoo xamante ni def nañ ko muy trouble boo xamante ni ñi ko dund dëkk Touba ñëpp ànd nañ ñaawlu ko loolu am ñëpp xam nañ ne ñi ko def dañ leen a jële ci yeneen dëkk indi leen ci dëkk bi def loo leen loolu muy acte boo xamante ni bu ñaaw la ñun nag ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni ñoo fi daje tey ñuy déplorer loolu di ñaawlu loolu ci loolu ci la ñuy wax ne dañuy exiger ñi nga xamante ni ñoo nekkoon di jëf jëf ju ñaaw di salte jooju kiñ ciy adressé loolu mooy njiitul coalition Yewwi Askan Wi muy Ousmane Sonko ñi ngi exiger mu taxaw ci kanamu askan wi jéggulu jëf ci ñaaw ji nga xamante ni def na ko ci dëkk bii di Touba. Macky Sall candidat lañ bëgg mu doon ñun waa Mbacké ak waa Touba 2024 loolu tam buñ ko yërëm nañ ko waxaale président dañoo bëgg mu nekk candidat 2024 incha allahu rabbi ñu jël réew mi yoraat suñu troisième mandat man de bëgg naa ko man Aliou Diouf. ñu ngi wax ne ñun ñëpp nañ engagé wu takkaat suñu bopp kenn soxlawul ñun suñu yitte tey mooy investir suñu candidat deuxième quinquennat ñu ci loolu lañ nekk ñii war di wax nag kenn du leen joxum réew ñu koy taal dëkk bi duñ ko taal réew mi duñ ko taal investir nañ suñu candidat deuxième quinquennat mais nag yemuñu ci loolu li ñuy wax mooy ñun ñëpp nañu ànd nekk benn

ay militants dajé fi ñom ñëpp nee ñi ngi fàttali seen coloré ak japp ci président Macky Sall. ñom ñëpp aussi maase nañu né président Macky Sall la le Benno Bokk du département de Mbacké moy seen candidat en 2024 pour investir. Nous ñëpp maase nañu né paré nañu pour le grand meeting régional d'investiture nous ngi déglu la direction du parti ban xool yan consigne lay pour nous respecter ko di la l'écrasante majorité de la coalition Benno Bokk Yakar, muy allié muy élu muy ministre muy maire muy grand responsable ku ku xam parti bi tey xam nga nous li fi dajee journalistes vous en êtes nous avons décidé nañu créer ben cadre bo xamné dañ koy la coordination des responsables de la coalition Ben bok du département de Mbacké Dans dajé wéru di jet def ay réunion fait Ben plan d'action dans les zones de Touba dans la commune de Mbacké dans la commune rurale fenn fu nek ñu mener ay actions d'animation pour préparer les élections de 2024